original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri la mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñëpp ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débiteri la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe débiteri beauté, on est ensemble. Ça bouge pas. ak ñu ni mbokki mbuur euh, di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ni mooy kilifa gi nga xamante ni moom la fi yàlla teg muy monsieur le maire Cheikh Issa Sall ñu koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam du nuyu ñi nekk mbuur yëpp. du nuyu la champion euh, assurance mu nekk champion boo xamante ni macha allah def na lu la ci làmb du nuyu la promoteur Assane Ndiaye borom Bawal production di ko wax ni lii du guléet ndax yaakaar naa ni Sénégal euh, bëriwul foo xamante ni tëggu fa làmb tey mu ñëw euh, war a bégalanteeg ñi nga xamante ni ñooy mbokki mbuur làmb ji war a am la 2 juin incha allah fii ci stade Caroline Faye lamb ju mag ji combat mag bi war a dox ci diggante ki nga xamante ni mbokk yi mooy Toubacouta ak Boy Mbour mu nekk combat boo xamante ni combat amateur la gars yi soxla woon ko Assane Ndiaye indi leen ko ñu ko ciy remercier waat bu baax a baax du def lu dul lekk euh, bëgg suñu papa bi nga xamante ni moo fi jóge ma Mabouri Dieng di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax di wax rek ñu wéyal liggéey bi euh, mu mel ni ñu ngi ci troisième combat bi su ma juumul euh, Mbisaan John ana Mbisaan Mbisaan John géwél mbaay yóbbul ma ko xaaral géwél yóbbul ma Mbisaan macha allah loolu neex na Sélé Sélé yegg si na moom ñu koy dalal ne ko yegg si la jàmm siyaar naa la moom. waaw maa ngi lay delloo siyaar Baye Fall bi. Mhm. nuyoo. bisimilah onze billah ina wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul maa ngi nuyu ñi fi nekk yëpp di nuyu sama gars yi nag. maa ngi nuyu sama gaay bu baax a baax a baax signature yow mu mbër am mbër mu andi ñaari kaar waaw daa am fii loo ma jaaxal daa am fii xoolal lii barki maam Seera Fall bàyyil sa naa la waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu ñëpp di bëgge gars yi fi teew yëpp mhm. di bëgge Zos warang di bëgge waa warang di nuyu waa warang bu ma jóge ko waa waaw kii lu ma ko wax bariwul lu ma ko wax bariwul mbisaan mii ragal la mhm. combat bi yàgg nañ di ko dox mënta taxaw mhm. combat bii nii dañ ko doxal doxal dox barki dem moo njaale mais soo ko woo di ko ne taxaw na ndax ñeme ah. waaw waaye neen da nga ko doon daw de barki maam Seera Fall quatre personnes la ma Omar Diaw jox damay préparé ba deux jours jóge entraînement mu ne ma booy dee daw ah. kii max moom kii waaye kii daa di max moom yow ñi nekk fii barki Seydina Mouhamad ñi nekk ay mbëri mbapat nee de kii yow na wax ban làmbal la ma sa final masta dem sa kii premier tour ña daan ka mu dem. dëgg li sa li ma la kii li ma yeewu si nag yeewu ko. Ah? ah kii li ma yeewu yeewu ko. ren rek laaj ko ñaata nag la yeewu ren. mais li ngeen fi wax yëpp mbapat la mais la deux moom bëre door la. kii bu dee lamb la. maa ko man ndax ñemewul fit bi day gis. Eh, kii paa kii maaka man maa ko ëpp doole fuuf kii bu muy bëre. barki maam Cheikh Rafaal damay toog di di ko xool nii muy bëre. Ah? billaay wallaay taalaay kii su may grand la doon bëreel. kii maa ko man ëpp ka doole fuuf du benn may lëbu. Ah. dëgg nga paru nga paru am am si man yaakaar nga paru dafa am si man yaakaar kii daal waaye nee na nga paru dañ ko yaay dëgg li ma la wax nii kii bu waxee na moom ay xale la ak nangama nangam ragala ragala bëre moo ko tere tardel ñun dañoo teel a ñeme di bëre suñu biir mag yi dañoo teel a ñeme nekk ay xale di bëre suñu biir mag yi di wane suñu bopp côté mobilisation te mooy ëpp mbooloo ci yéen ñaar ban mobili waaye gisoo moom nekk boo ay supporteram xool waxal ku ëpp mbooloo yéen ñaar kii maa ko ëpp kii maa ko ëpp mbooloo cinq fois Sané mbooloo mbooloo de. déggoo li ma wax ni moom bi ma ko yeboo nay andi César Gueye ba mu fees. bu jour ba dama koy daan mu neex ko mu naqari ko dama koy daan. kii bu ma daanee barki maam Seera Fall ma xam ne waa Ngaparou bu leen ma toppati. billaay wallaay taalaay. kii gi ma daanatee waa Ngaparou yee may waaw maa ngi woo monsieur le maire. maa ngi woo monsieur bu baax. monsieur ñaari ñaari bloc la ma jëndal. Abdou Sakho. ñaari bloc. o oh, ak kii. ah Astou Ndiaye ñaari bolok barki maam Seera Fall di gërëm Modou Gueye bu baax a baax Modou Gueye amu ma feyam sama booy yi ma àndal nii booy booy daara ji waa ala accu booy ah booy ñoom karaay booy ñoom karaay maa ñaa sant di ñu gërëm di sant sama gaayam àndal ñoom ñay baraan ñay kooku mooy sama lépp si àdduna moom wax on a na gaa yi jël gaa yi barki naa Muhammad nañu gaa yi jël gaa yi ay ragal ne waay billaahi waaye maa ngi woo waa Waran yëpp waaw dina wax ñu waaj combat bi ñoom ñëpp ñu ñëw incha allah bu neexee yàlla kii nii dinaa ko wan ne luy mbër kii maa ko man maa ko doole yaramam bii ni du doole waaw wooteel man damay liggéey maa ngi woo waa Waran ne leen ñu ñëw teew si combat bi bu na prip soo taxawee dada bopp dinaa la daan jël boo xam ne ne kenn du ko werante man may xale mën a bëri maa la man soo ragal na bisaar yow mosoo gisu xale da ngaa ragal ñay mi ngay tudd ñay mi ngay tudd mu ngi génni ñëpp di ko gis ayca kontaan na kontaan ñey mu ngi gën a di bëri mbër woo dee dagg de so ay maa la man fuuf bi lay wallaay taala mu naqar la jeex na jërëjëf Tidiane Faye numéro 2 euh, di la di rafetlu euh, teewaay bi ñu ngi leen di vraiment di remercier di wax aussi Assane Ndiaye félicitations euh, pour organisation bi bon ñun nag original yaakaar naa ni du ma leen ko présenté wati ah, ah. ndax original Euh, jus bu naturel la seen jus la def leen ko seen seen jus adopté leen ko pour yéen ñëpp la waaw léegi nag euh, maa ngi bàyyi wuli mu wax leen euh, li si jë ñun ñi nga xam ne luñ ko wax original <laughs> asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa Mbour bu baax di jiite ci nuyoo bi nag champion bi toog muy bu buuba sama xarit di nuyu Assane Ndiaye di nuyu Père Diaw président CDC bu Mbour nekk fi di liggéey liggéey bu am sol di noyu nag sunu xarit muy la maire Cheikh Issa Sall nekk nit ku baax di jàppale Mbour parce que lii mu nangul Assane Ndiaye c'est c'est important maire nii lay mel Cheikh Issa Sall dama bëgg waa Mbour gépp gën koo fonk gën koo jàpp parce que mu ngi jàppale waa Mbour lu mu am andi fii lii mu nangul Assane Ndiaye xam nga ne lii événement bi gis na am Mbour te tey ñu bëri boo leen ko joxoon ñu bañ loolu mais Cheikh nangu na ko Cheikh assurance nooy ma Cheikh di lancé appel nag ñëpp di ko commencé ci maire assurance nee ko bu mu naati benn chiffre original parce que Ndoukoubane groupe dañu ma jël man may mbër di bëre ñu def ma ambassadeur jus original def ma ambassadeur boisson Cobra loolu du du n'importe qui ñu signé man un an chaque weer may fay loo xam ne macha allah kon maa ngi lancé appel waa Mbour gépp kuy naanati nga naan jus original parce que moo jàppale mbër yi ah Qatar para booy mbuur mbër yëpp a ngi ni sol ko mbër bu ci sol daal yal na nga daan de ah man ñu soog original laa faral ñu soog original samay xarit lañu baal leen ma mais maa ngi lancé appel ñëpp képp kuy naanati jus dem leen jëndi original yeneen jus vraiment yàgg gi fi yàgg sax war naa tax ngeen ngeen bay ko nag ñëw ci biir vraiment kontaan naa buuba maa lay siyaar bu baax di gërëm ñëpp macha allah. na solo. jërëjëf Wuli kontaan nañ ci yow ak ki nga xamante ni mooy Guèye Ousmane. numéro bi numéro bi waaw. képp koo xam ne bëgg nga jus foo mën nekk ci Mbour kii kii mooy Mouhamed Thiaw moom moo nekk fii directeur commercial fii ci Mbour jàpp campement nga paru Mbour gépp képp ku bëgg jus mën na la woo ci ban numéro. salaamaaleykum. maa ngi nuyu ku si nekk si tuuram a sangal waaw ku si soxla si jus bi mën na ma woo si 77 644 97 35 77 644 97 35. macha allah. am na solo mi ngi noonu. mbokki Mbour képp kuy naanati boisson na nga naan bi nga xamante ni mooy original. waaw yaakaar naa ni combat mën ngeen a dem toogaat combat bi ci topp. waaw nuyoo la. auzu billaahi mina ginnaaw bu ma sante yàlla maa ngi julli seen bi di sant sama ñaan waajur mhm. di ñaanal sama papa yal na ko yàlla xaari àjjana yal na suuf sedd si di ñaanal ñi fi ñëpp mhm. di ñaanal sama grand ma àndal mhm. di ñaanal sama waa koñ waa ginnaaw raay di ñaanal ñëpp di ñaanal sama adversaire yi uh-huh. yal na ko yàlla may wër ba jour ba macha allah nuyoo Toubacouta waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si yéen bi sant waa Mbour yëpp waa Golf Tefes Onkar zone Sonatel këri maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen woon jàpp si bis bu baax a baax kii maa xam man maa xam doole maa gën nekk xale barke Serigne Touba fu ma ko jàppalee dëgg la boppam. dégg nga li mu wax. waaw xam nga làmb. xool leen caméra bi. làmb dafa am réalité. Uh-huh. ñun doomu mbuur lañ di bëre fii. Uh-huh. yaa may dégg. Uh-huh. kii su laata woon Tidiane Faye barki Seydina Mohamed du jël sama avance. billaahi wallaahi maa ko mën aller retour. billaahi saa nee na xamoo ko de. kii day wax kii ku ko xam barki Serigne Touba kenn xamu ko. Toubacouta bu mbuur dañ la wax. wala doomu mbuur la si lamb ji hmm. wallaahi wal azim lii boo ko si jeex na hmm. kii bu arbitre sifflé jaruñuy mbapatu buñ mbabatee combat bi du yàgg nañ taxaw ñu rëddal ñu cercle ñu xeex ba ba lamb ji jeex ku mën sa borom mu daanu buñ jàppante sa borom doo xeex ak man ma dóor la nga daw génn lamb nga ne da ngay xeex ak man da nga mën a xeex ak man man njortaan moo nekk sama ginnaaw xeex kii a ah, xoola kii li ma def si lamb da ko def si bëgguma ñu bëre buñ bëree combat bi day a jeex nañ taxaw ñu xeex ñu dëggal suñu bopp. pare nga pour loolu. amul nga kii masa am nag man damaa bëre ba jël samay nag yow ko suñ bundu kër boo jëmee suñ bundu kër fekk fa nag kii amul doole amul. nee ko la daan ba am nag. Ah, kan nga daan ba am nag. ni ma daan yow du yow yow laa koy wax gars xam nañ boo génnee ñu ne la Tidiane Faye doo ko laajte mais boo nee Toubacouta numéro 2 kenn xamula. soo duggoon YouTube bi Tidiane Faye Tidiane Faye bu mag kan la ñuy xam ci barki Seydina Mouhamed le deux maay fecc maay bàkku yaa may def maay taxaw si caméra bi wax moom xam nga billaay bu ko neexee na sant li muy sant li muy sant yee boo paree na nga ko may mu santaan barki Serigne Touba Mbacke waa Golf ak Tefes ñoo nekk sama ginnaaw billaay su ma arrière benn pas nañ ko jox victoire. yéen ñaar kuy ëpp mbooloo. kii maa ëpp mbooloo fu bu yu xoolee kenn du ñëw man maa ngi nii ñëpp a yu. kuy ëpp mbooloo. ginnaaw raay loo dëkk da ngay da ngay laajte Rion raay fan la doon ngémboo di ñëw du ñu ragal mhm. kii dañ koy yooruloo bu bu mu yor bu yooroo nag dina fekk lu garaaw na taxaw ñu xeex bu mu yooru na dëggal boppam taxaw ñu xeex ah xaw ma ay jàmbaar ngeen di taxaw na yëkkati loxoom doo gis un nit bu yuuxu jeex na bu yëkkatee loxoom doo gis benn nit fii yëpp am xaw ma ay xaw ma ay jàmbaar ngeen xaw ma déet mais kii leen sponsorisé jàmbaar la ETDR taxawal ni damaa dégg yóbbam dem ndànk yóbbam dem daf maa daal day wër ne ne Tidiane Faye mag la ne ko mag bi moo koy daan incha allah rabbi kii dama koy jàngal bëri dama koy xeexloo duma ko daan ko. macha allah daa gàddaayoon day jeex na ma nga noonu ETDR ñu koy nuyu bu baax a baax Kanji production borom établissement Touba Darou Rahman. moo jàppale Assane ci li nga xamante ni mooy combat bi mu jëm le 2 juin fii ci Mbour stade Caroline Faye wooteel. waaw maa ngi woo waa ginnaaw raay maa ngi woo waa ginnaaw raay bu baax di woo waa bay dëkk yëpp di woo waa Daara ma di woo waa Konkaat. yaa ma dégg maa ngi woo sama mbokk yëpp ñu jàpp si di woo sama grand yi di sant nag sama grand Mbaye Sarr di sant Sini Ndiaye di sant Bac Sam Memanda di sant ñoom Tonnerre Afrique ñoom Mam ñoom As loo maa ngi sant sama grand yëpp di wax nag waa Guinaar Rail ngeen teel a ñëw suñu kon la ñu duggee esaat billaay kii lii am si lambu ji bu yoroo dama koy dóor mu daaru na taxaw ñu xeex bu mu dëgër mu ragal am na solo wooteel waaw di woo waa Golfa di leen wax ñu si waa Golfa sax amatuma lu ma leen di ah. sama booy yi ndaw yi aliya bu ndaw yi barki Serigne sama xale yi ndaw yi dañuy dem bëgg teer am ay mandat 1000 francs ku nekk ñëw di ma ay téeméer 1000 francs barki Seydina Mohamed sama booy yi ndaw ne Espagne di leen ñaanal jàmm mm-hmm. booy booy moom laa mm-hmm. billahi ku si nekk day dajale xaalisam ñu ma koy yónnee di sant waa koñ égal bu a waa ah. tefes ñëpp Caroline Faye jërë ngeen jëf. ayca maa noonu ban combat moo ci di nuyu waa di nuyu aussi suñu grand muy assurance. di nuyu général Diouf bi di nuy euh, maire Mbour Cheikh Issa di ko féliciter si liggéey bu rafet bi. ak Assane Ndiaye aussi le promoteur. Uh-huh. aussi ñi ngi nuyu bu baax sponsor bi. Uh-huh. di ko remercier si liggéey bi mooy si ordonnance. si uh-huh. ordinal. ñu ngi koy remercier si liggéey bi moom tamit mu ngi jàpp si bis bi quoi di nuyu sama adversaire bi taxaw nii. bëgg naa la. waaw ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yeneen tamit sant suñuy ñaani waajur bu baax. di sant ñi ànd ak man ñëpp. waaw sama coach bi ak sama gars yi ma àndal yëpp ku lim juum ko waaw di santaat waa ONCAR bu baax a baax a baax di sant sama ménagère Assane Gueye moom mu lijjanti di bi ba mu taxaw di sant Omar Diaw kii moo nekk sama cinquième adversaire boo xamante ne nii dañ ma koy jox gars yi di delloo avance yow mi barki Seydina Mohamed kii awma lu ma koy wax kii màgget la kii daa demoon daa demoon daa bàyyi woon bëri daa demoon retraite ñëwaat dama koy delloowaat bu soobee yàlla incha allahu rabi dama koy delloowaat retraite nee na cinq adversaire delloo nan avance am jël ko loolu ci dugal waaw ah, moom kay man dama koy sant sax di ko gërëm parce que man diiran bi ma toog mu suma bàyyi bëre mbuur tëggal nañ ma fi ay combat am pagaay ku ñu ma jox mu delloo avance ndax xeex bu métti mais moom kom yàlla yàlla yàlla jàppale na ko ba mu jël combat ah. bu mu daw la deux na dëggal boppam incha allah ma ànd ak sama waa koñ ñoom général Diouf ak sama papa ba mbërjee ñëw duma ko daan ko si deux minutes si kattanu yàlla deux minutes kii lu muy wax nii gëmu ko lu muy wax nii gëmu ko bu barki Seydina Mohamed bu taxee dëggal boppam ma dóor ko mu daanu kii. moom mi moom mii nii kii mii xel mii si kaw xel mii. yaa ko sa bopp. kii bu taxawee fii naan mun na maa dóor mu daanu de de de <laughs> dafa kontaan rek <laughs> parce que man mënu maa comprendre man bi may bëree moom bëreewul. bi may yëngal làmb mbuur booy bu ndaw laa ba mbër jee moom a njëkk a jox dóor fii may yëngal sama borom yi kenn ñemewuloon tàq njaay mu di bex bëre kon boobu taxaw loolu lijjanti wuñ ko moom booy bu ndaw man xale bu ndaw laa damaa màgg kii ba muy toog di ko seetaan yaa ngi may dégg kii lu muy wax ni ay waxuma lambër la rek bu bés barki Seydina Mohamed dama ko dawal un pas billahi wallahi wa taala kii dafa dof rek daa jàll laajul ñu fi jaar waaw ah, ah, moyen de respect waay moyen de respect micro bi bu mu la tiim ngay saaga man leer na ma ne barki yonente yàlla Mohamed bu ñu maa ngi woo sama mbokku séeréer yi waa Fisel Mbadaan maa leen di woo si combat di woo waa Caajaay waa Sanjara waa Seeseen naan leen nañ ñëw jàpp si bis bi di woo aussi sama mbokk soose yi di woo tous les collègues de Manding maa ngi leen di woo groupe waatoo siita waatoo siita maa ngi leen di woo di woo aussi waa jambadom VIP naan leen nañ ñëw jàpp si bis bi naan sama mbokk soose yi mbaa di Manding la naa kam mooy laal mbaal mbaal daan na ale maa koy la ngalanɗam toromuta ga ɓuute ga ɓoye alani mahmed barkoto inchallah woten allah man maa ngi woowaa Joal ama di woowaa di woowaa oncar bu baax a baax yaa may dégg di woo sama sama sama dëkk sama dëkk yaay comprendre kii lu muy wax nii amul benn sens barki Seydina Muhammad di woo nag ñu ne si diaspora sama gars ne si diaspora bi ay jibi ay ñoom wës di ñaanal ñi nga xamante ne dañoo demoon si mbëkk bi temps yi nii yàlla jël seen bakken dinañ ñaanal yàlla ñu tëdd suuf seetlu seen kaw bu baax a baax waaw am na solo jàpp si tag aussi maa ko na ko ñëw jënd di woo aussi colonel colonel euh, El Hadj colonel El Hadj Gueye colonel maa ngi koy woo si bis bi mu ñoo jàpp am na solo jërëjëf kontaan naa. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Mbour gépp xam nga di nuyu sama mbooy ma àndal quoi xam nga di nuyu gars maa ngi leen choix di leen bëgg daal maa ngi nuyu ñëpp la maa ngi nuyu su ma leen may jum quoi mais santam quoi jornam nuyu nan la onze bila bisimila inawaale yàlla jërëjëfe borom Touba uh-huh. jërëjëfe di Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant sunu ñaari waajur di sant ñi fi ñëpp ñëpp waa di nuyu waa ikri jàmm gën de yëpp uh-huh. nga xamante ne sa bu dara dara ñoom laay gis macha allah di sant koñ bu baax a baax mm-hmm. eh, ñëpp ñi ñëpp mm-hmm. di nuyu promoteur bi bëgg naa ñëpp ziar naa ñëpp am na solo di nuyu sama adversaire yaa may saaga nag boobu ba léegi seeku mag yow ay saaga man du la saaga signature moo ñu boole man ak yow. Banana Saka. si noo ko gisee noo gisee sa adversaire. tapen nga naan Banana Saka. imposé teer rek man làmb duñu ma sa adversaire doxal si koom kenn du ma wax loolu dañ ne ma teer. kon teer rek yow. Uh-huh. noo dégg. non kii bi ma du ñu dara ma dama a poye Saka. père kii ma lamba ñu boole maam de xool na. non mais ba Sëñ Tuubaa nga kii père kii xam naa ko duma naa ko daan. dañ ko duma. barki Serigne Baba dinaa ko duma naa ko dal. dégg nga. kii li muy wax gëmu ko. Hmm. barki sëñ Fallou Mbacke li muy wax xaaju ko ak gëm. Ah. kii mënul si xaw ma bale kii ne ko mu dem entraînement bi moo gën muy xëy di wëri Serigne na dem liggéeyi. sama plan B la sama plan A sama plan B la. mooy sa plan B. kon moo na bëri kii maa ci la ñëwoon na bëri koo daaw a jox ko am jël ko. Ah. xoolal barki. ñu caawante billahi wala taala nañ gis bu ñu imposé dañu gis Bestaak bu ñu imposé Bestaak koy ñëwaat kii naa ko duma naa ko daan barki Serigne Ba ko doy caaxaan kii li muy wax gëmu ko barki Sëñ Fall kii du bëre du xeex du daan damay bañ nag ngeen na man damaa indiscipliné mais ne leen ko mu téye balam bi man laal lu laaluma ko dara man maa ngi téye sumay loxo comprendre nga voilà foofu laay yem ngi moom mooy laal balam bi de bi ñëwee ba léegi nag mu ngi tooñ fii ñëw di tooñ pour wax imposé barki Serigne Saliou Mbacke dama lay xamal benn affaire. Eh, maanaam da ngay déglu dama lay xamal benn affaire. yow doo xeex doo bëri yow tapé eh, yow amoo barki Seydina Mohamed amoo fit dégg ko lemal amoo fit barki Sëriñ ngay xapp-xappal nii billah yow xanaa xam nga ne neex na ba pare kaay leen nii kaay yow doo xeex doo bëre yow doo xeex doo bëre kaay kaay kaay leen woote wooteel wooteel imposé taxawal wooteel wooteel wooteel kii nii li muy def nii du dara bàyyi ko muy taltali di wax kii maa ko ëpp fit maa ko dàq bëre kii deful dara si làmb gis nga buuba barke Seydina dina yow. waaw wooteel wooteel kii di kii deful dara si kii kenn xamu ko mbuur gii la nekk fi di karay combat sa ménagère an sa ménagère moo ngi ñuy toog barke Serigne Salima xam nga la laa leen wax dem leen wax ak moom ba mu d'accord ñaata adversaire am jox euh, euh, nuñ koy wax am ko doon dox combat yi. Omar Diaw fii daal mbër miñ fi xam ak mbër miñ xam ak muñ xamul ci mbooloo mi lañ koy xamee la dëgg dégg la ma la yow yaa xamul mais ñi toog fii yëpp xam nañ ma wooteel la dégg la ma la man ñëpp xam kii kenn ngay laale sa bali boo si yaakaar am ndam doo am ndam barki Seydina Mohamed doo am ndam sa ni dagg ngeen bañ a woote émosé eh, xanaa doo am ndam sa affaire yi ngay da ngay téye sa lii wut ko mbalaan wut ko mbalaan waaw wootee leen bu jeex maa ngi woo waa Mbour yëpp maa ngi leen woo waaw xam nga di woo maire ñu woo ñëpp daal waxul trois ñëpp maa ngi leen woo maa ngi leen woo si combat bi ñu jàpp si sama maa ngi ji maa ngi koy baax si ñu jàpp si combat bi. ñu ne ma ñu baax ñu jàpp si combat bu baax. ñu ma ñu bu la ànd dëgg yaakaar maa ngi koy bi bu baax. am gërëm moom ko am moom ce pas moom laa am ñu ngi jàpp si combat bi kon ci barke Mohamed ma daan saa jël bu rëy dem ñibbi école trois incha allah. waaw maa ngi sant sama waa dëkk bu baax a baax a baax imposé teel sa bale bi teel sa bale bi barki Serigne Salim Mbacke boo xalaatee sa bale bi moo may daan yaa ngi nax sa bopp maa ngi sant fa ma dëkk waa seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli si yoon def di sant sama ñaari waajur kii nag moom làmb moo ñu boole uh-huh. jox ma ñaari adversaire ñu daw uh-huh. ceeb bu Joal ak une tonne bu kees uh-huh. kii léegi la ñu d'accord ak moom léegi waaw mais na dëggal boppam rek waaw loolu laa naa fay naa la. Uh-huh. maa ngi sant waa Ngexoo yëpp. di di sant ñi ma àndal sama sikam paa yi. Ibou Ndade ak Zal. di sant grand Pythagore bu baax. kii aw ma li ma koy wax maa ko mun maa ko ëpp doole. bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. yaa ko déggal sa bopp. ki gars yi comédien waxu mbër lay wax rek. barki Serigne Touba Mbacke dama am problème adversaire billahi wallahi. maa ngi nii dama am problème adversaire. nag di wax na dëggal boppam. am na dëgg yaakatul incha am nga fit de laaj ko ku mu daan moom. ak moom mooy kan man tey laa koy doog xam. xaw mu dëkk gànn gaal mënu ma koo xam loolu daf maa nekk lu ma jaaxal. am na ma. man waalo waalo laa di wa waa waalo yëpp ci làmb waa Ross Béthio di saa tool di woo waa waalo sama dëkk waa Mundoom. Mhm. ñu jàpp si làmb ji man damaa ñëw fi Mbour. yàlla boole ma sama toma Ousmane Gandé Gaal. Mhm. nu ma mel moom la. am naa fi ay làmb Omar Diaw tëgal na ma fi ñaari yoon am naa fi ñaari yoon làmb stade municipal bii. Uh-huh. dama nekkoon ci ay xama rek ndog nag moo tax boobu léegi. mais sama ko. kii day la du dara. barke alxuraani karim. daa mel ni bu arbitre génnee suñ diggante ngeen weddi ko. am na solo lu leer ni midi laa lay wax. am na solo woote. làmmañ bee rek. waaw yow góob ma sax nga yeggali combat bi laajal sa boo bee toog mun na la mun na la leeral sa combat bi yàlla xam na ne góob ma nga yeggali ko maa ngi woo waa Ngexon yëpp di woo monsieur le maire. mu ñëw jàppaleñ ci combat bi man xeexa ma gënal kaay ndekki wala kaay añ. après nga seetaan sama combat damaa dóor mu daanu nga may naan nii. wooteel xanaa laaj woo ma yow xool nga ma yow. waaw waaw eh, eh, kii li muy def nii eh, eh déedéet. auzu billaahi mina shaytaani rajiim maa ngi sant yàlla bu baax julli sunu sant sunu sëriñ Seydou Rabinas di sant ñi fi nekk ñëpp eh <laughs> ay sant yàlla bu baax julli sunu di sant sama waajur di si kawam. macha allah ziar naa la mbër. ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur uh-huh. di ñaanal sama yaay fi mu tëddee yàlla suuf seet si kawam uh-huh. ñaan yàlla yàlla yàlla xare àjjana yàlla suuf seet seen kaw si barke yonent bi waaw macha allah noo gisee sa adversaire waaw sama adversaire gis naa ko xool naa ko baax a baax xam naa ne jour ba dama koy duma dama koy daan ah? waaw dégg nga loolu yow kii day sóob rek kii kii day sóob amul su ko bi dara lu wax su bëggee Omar Diaw mi ngi nii xam nañ baax nañ xeex 10 minutes doo ko bëri xam naa bu ñu nee si wàllu moom jeex na xam nga <laughs> xanaa xeex ba nga pare nga xeex loolu moom du ma koy tontu public bi ñoo koy tontu public bi uh-huh. da ngay laaj fii nii combat Caterpillar ndax Caterpillar day xeex wala du xeex kii ñi ma wula xeex ak uh-huh. kii Omar Diaw mi ngi nii nañ ko signé fii CNG laa nañ ko signé ñu xeex 10 minutes doo ko bëri pare nga pour loolu pare nga lay wax laa la wax moom li muy wax nii gëmu ko la ma koy ñaan benn affaire rek benn affaire laa koy ñaan dama ko koy ñaan si njëkk na taxaw dëggal boppam du na bàyyi daw yi di génn saaku yeeg dem ak digg ñu koy a lamb ji bëgg moom bëgg mu taxaw mu duma ko daan ko loolu laa koy ñaan góor yàlla góor boo signé sa moromu góor ngeen war a jàkkaarloo jaayante da ngay taxaw dëggal sa bopp sa combat yi mujjee bëri da ngay daw ba lamb ji jeex jox la defet bii taxawal ma duma la daan la nga wax ci loolu. laajal Omar Diaw neuf combats laa am mbuur neuf combats laa am Omar Ba tamit yàlla ma si yàlla mosal xam nga comprendre hmm. kii amul leen jaaroon na si liggéey jaarat fa man maa ngi dama koy jaar si kaw incha allah jàll bu neexee yàlla bu neexee yàlla. dégg nga déggoo li ma la wax. waxu ragal rek lay wax eh? dama koy ñaan rek jour lamb ja li muy wax nii di mbelelele di jéem a jaay dof na taxaw rek maa la gën a dof maa la gën a koo maa la gën a wan aw yat dama lay dóor ba nga tëdd sa bopp. yéen ñaar kuy njëkk a dóor. maa koy njëkk a dóor. dégg nga ko. waaw am kon kon sama xel dal na. kuy dina taxaw ñu ak man. ku ëpp mbooloo. dégg nga man xool am na li may jël a indi nii sax dama ko xeeb. maanaam Fosco moo am sama Fosco moo am sama dëkk. moo tax booy yëpp ñëwuñu. jour làmb ja bu supporter am yéexee du ñu am fu ñu dugg. waa Mbour xam nañ katar bilaat bu baax man mbëru eh, man mbëru gox laa man mbëru gox laa du ma mbëru koñ. fii ay defar rek fi am waa Mbour ay defar lañ ko xamee. macha allah man ma dëkk Mbour. màggee sali mu naan ma ay supporter damaa la buuba maa ngi lay ñaan nga ne Cheikh Issa Sall mu jàpp si biir ñu feesal stade bi xam nga wan promoteur bi ne ko fii mbuur la xam nga gars yi di ñaan yàlla ngeen teel a ñëw yéen ñëpp ma jàpp sa waaye defar ko xam nga mooy loolu jàll feneen wooteel waaye maa ngi jéggalu gars yi yëpp xam nga mooy loolu affaire signature la jaxabin masawu sama ñaari gars yi doon coow xam nga lii lamb la rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xam nga lox ñu dugg si bisimilahi rahmaan ba promoteur yi jógee Dakar uh-huh. chaque jour su di ñëw mbuur pour tëgg lamb kon loolu dañ koy jéem a góorgóorlu baax mm-hmm. ca tey jii maa ngi sant buo ndax buo moom xam nga mooy loolu bu raamu baax la di sant Omar Diaw tey man su ma nekkul band yàlla ak Omar Diaw la parce que man damaa nekkoon tëf yi mbuur woo xam doo comprendre tey Omar barke rasulullaay ma téye booy def dara jar mu ne ma booy confiance nga gëm sa bopp te ma gëm ni ma ko gëm ba tey jii nii kon kii du ma téye man am na ma tax a de du kii de ah. wala yaasim waaw maa ngi sant euh, waa Sall yëpp ikiti Sall yëpp di sant Jordan Pa Ousmane parce que tey lépp moo mel rek yàlla ak Jordan la ak buum yi tey ñoom góorgóorlu na baax mu ne ma defal lii booy defal lee ma topp si ñoom ah. ba tey fii damay sant leen leen gërëm bu baax di gërëm que Omar Diaw fu ma toll ko def moo tax ne ko bandi en fait di sant ki nga xam ne nii kii moo tax ñëpp xam muy barxaama di ñaan képp ki nga xam ne nii sunu borom def da ngay taalee bàyyi wala ngay taale ba keneen maa ngi ñaan yàlla nga téye sa kurus ñaan ñaanal ma si may ma ndam bu gaaw ca neex ca kii ma laal ka laal yi neex waaw man moom du ma fi ne du ma sant du ma sant tey damay bàyyi wa tur lamb jëm bu soog a sant moom li mu doon sant la waroon sant nii loolu la si am man damay woo waa zone Dior gi yëpp mhm. di woo waa tent baabu kër xaali kër Moussa Tangis kër Songo Ndiob kër Mbay ñëpp maa ngi leen di woo di wax ñu mobiliser mobilisation bu mag maanaam stade dama bëgg fu ñu xool gis waa zone Dior ñu fees ko del di woo waa service de mine sama patron Pape Niang di woo Cheikh Yane mine di woo Pape Niang xam nga Binta daal ku lim jum su ma limee na di woo waa carrière suuf yëpp ci carrière suuf yaay liggéey mooy woo waa carrière suuf yëpp ñu ñëw ñu am si combat bi di woo promoteur yeeg chauffeur benn yeeg waa service am yi nag am na solo jërëjëf auzubillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant ñaari waajur di nuyu waa mbuur yi ma nuyu waa Joal hmm. di nuyu waa Fatick hmm. di nuyu waa Gandiaye hmm. rawatina waa Mbour ah waa Mbour waa Tefes waa Golf waa Séddo waa Fibi Uh-huh. waa Redu waa Mbour yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp ah nuyu ñoom Assane Ndiaye xam nga mm-hmm. nuyu ñoom Père Serif Diaw ñoom Bouba Assurance nuyu sam papa nuyu ñoom Jordan xam nga mm-hmm. nuyu waa Mbour yëpp ah. am na solo jëf maa ngi noonu naa la ma salaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu kenn am sama benn xarit bu génne àdduna fan yi passé ma bëgg ñu def benn une minute ma doog a commencé wax mbooloo mi dama bëgg ngeen jóg ndax benn université silence ngir taxawantaam dafa bokk si man jërëjëf maa ngi leen di nuyu leen ñëpp di kontaan si taxawaay bi àdduna lii rek la bas sama booy nga sama booy nga nag jël nga combat boo xam ne waroo koon jël xam nga lu tax dañ laa dugal ci guutam booy barki Serigne Saliou laa la wax dañ laa dugal ci guutam soo taxawee rek combat bi du yàgg ndax dama lay daan incha mbër mer na de. Euh, doom day ziar naa la avant tout damay gërëm Assane Ndiaye parce que sama avance yaakaar naa ne daa taxawal biir mbuur yëpp kenn jëlu ko. kon tey bu ko sos jëlee damay sant yàlla bu baax di ko remercier. di nga xamal ni nag moom mu nekk mag bu ko combat bi jëlee benn man muy xale bu ndaw jël na ma fukk ak juróom zos doo am dara yaa ngi dégg ah yaa ko déggal sa bopp bas bu soobee yàlla yoon tamit bas dama lay daan taxoo maa jóg dama ne woon rek du ma may benn booy san xam nga ngeen laa vidéo sama bët hmm. ay Ousmane Gandigal ñooñu laa vidéo sama bët ay ñoom Pathiam ñooñu laa tegoon sama bët mais du yow booy dama lay daan barke Serigne Sall laa la Zos. maa la man xool ma. man maa la man booy barke Alxuraan maa la man. man maa la man booy. bu ñu tojee barbari doo taxaw barke Serigne Touba bu dee di nga taxaw nañ nañ teg tegal si leen li ka. Zos bu warang xool ma yaa may gis yaa may xool. mu ngi lay xool di nga sa jàll bii nii dama koy defaat beneen jàll. la deux dinaa la duma dinaa la daan. bu dof maa la gën a dof. junni yoon bu dee ma bu dee maa la bu doole maa la ndax bëri. yaa ngi dégg. bu soobee yàlla yonent bi dinaa la duma dinaa la daan. doole waaw incha am ndam le deux. you know bi. damay wax que ah, sa bopp sos. waaw taxawal non non du ma ko laal man dama. sos sos. yërëmal sa bopp lamb yi amoo sens ba nga jëlee bas ngeen joon nga ñàkk sens yow yow xam nga da yow yow xam nga doo xool la wax dinaa la duuma dinaa la daan ayca wooteel wooteel kii mbëri tik d'accord la yow tik d'accord rek da maa mën a daane ayca wooteel damay woo bismillahi rahmaani rahiim damay woo waa warangi kopp ko dëkk warangi ku ne maa ngi woo waa warangi waa warangi yëpp maa ngi woo waa warangi ñu jàppale ma surtout nag du woo monsieur le maire Maguette mu jàpp si combat bi ma daan jël bu gaaw amul sax ay werante ñu ñëw féete ko warang maa ngi woo waa warang woo mbariñ woo ñariñ woo gaña woo ñëpp daal maa ngi waa mbuur yi sax mbuur bu mu dëkk koñam tefes maa maa ngi fay woo waa tefes dinaa la daan si kàttu yàlla ak suñu borom billahi dégg si yóbbante nag na nga déggal loolu sos lox yow yaa ngi wax i ma bul lox bul tee naan yow yow yow bul lox man ngay waxal loolu problème dafal nànk rek sama garaane non dafal nànk ñëw ñëw ma sama dëkk le deux la bagage nga ñibbi waat sos yow fii ba suba mënoo ma daan wooteel doo champion dama la arrangé jël la mais yow lamb boolewuñu sama ak yow grand combat bi li maa si onze combat nga duma champion onze combat yow da nga am combat 11 combat 7 victoire yow wax loo waay booy. waaw mer loo waay maa ngi woo sama fans yi maa ngi woo sama fans yi bu baax a baax kii laa ma jëw na sama wax waxal ba doyel bu subaa ma daal moo si ñaar dërëm waaw maa ngi woo waa tefes bi ma juddoo di woo waa golf di woo waa Salado waa Fibigi waa étoile waa relais mhm. yaa ngi comprendre di woo waa ginnaaw raay bu baax a mhm. woo sama booy sama grand yi ñoom Baye Serigne Zalmel Baye Mouhamed di woo ñoom Mor Feeraay ñoom Ibrahima Tall ñoom Amé Plateau yaa ngi ko man di gërëm ñoom Siyaaka Fall Robert Ndiaye Amel Diop Baye Mbaye Jordan képp ki contacté ñoom Siyaaka Fall Robert Ndiaye Wus Jordan booy bi dalaa mën a tee kii te maa ngi sama gars yi ñoom Gilim Wër ñoom Zakaria yaa ngi ko wax ñoom xama ñoom Ifay ñoom Seex Fay ñëpp kii du bëre du xeex du def dara day ñëw ma duma ko dànk barki Serigne Saliou Mbacke kii taxuma sax jub am na solo jërëjëf maa maa ngi gërëm sama gaay yi ma àndal ay boy ndaw la doo gërëm kenn doo gërëm kenn ay ja jërëjëf rendez-vous le 2 monsieur le maire je suis vraiment parce que jour boobu fekkutoon ma nekk Mbour ku la yëgul santul la gërëmul la reconnaître la li ngay def du def loolu c'est pour vous dire que Cheikh Issa Cheikh Issa wu Mbour la mooy suñu maire dañ koy ñaanal sumb bi mu sumb mu réussir parce que bu réussir mbuur yëpp ay réussir kii di xale boo xamante nii juddu dëkk bi la jàng fa nit ña jàngee borom xam-xam yi ñuy wax ci Sénégal ci la bokk mbuur soxla ko mu bàyyi lépp loo xamante ni moom la jàppoon ñëw fii di liggéey ci wetu ki nga xamante ni moom mooy monsieur Cheikh Issa Sall kii tey su fekkoon da ko doxale ci suñu digganteeg moom rek doy nañu parce que on a tout fait ensemble muy Ndiaga Cissé mi kon loolu rek laa bëggoon leeral di sant Assane di la gërëm di la wax ne tu as fait le bon choix en choisissant le premier magistrat de la ville de Mbour mooy monsieur Cheikh Issa Sall Ndiaye Fall ma ñëw ma Ndiaye Fall boo ñëw ma ñëw saa saa bëgg sa lay baayam maa ngi baay maamam lu ngay yaayam sëñ Issa mooy doomi Mbuur ma Ndiaye Fall yàqu leen dëgg bi ma Ndiaye Fall jërëjëf bala ngay jël bala jël kàddu. naay dama ko fàtte woon. faaw nga jàkkaarloo ak yow tuuti ma Ndiaye. kenn du moom ci ndax yaakaar naa ne bi ma ba tey ci ginnaaw la. baax a nekk nii. ku joxe jël ko nekk nii. naay mii damay wax ne lépp lu nit soxla ci Cheikh Issa Sall boo gisee naa jàppal ne am ko. dama Cheikh Issa Sall kaddu Sall lay naa. waaye nay sama waay. nit ki li mu moom ak li mu bokk ak li ko boole du benn ma fa damay jaaraat ci li ma ma toogoon ci ginnaaw naru ma woon a yëngu ndax ci suba ba tey ñu ngi tëgg bi ñu ñëwee boobu ba yaakaar naa ne tuuti laa ñam jàll ci ginnaaw asam nag tey mooy sunu gan te boo amee gan da ngay dem teral ko kon Assane Ndiaye dañ lay dalal tey waaye ma jaajëfal ñun buñ gisul monsieur le maire gisul monsieur le maire jàkkaarloog yow yaay chef monsieur le maire il faut que ñu jàkk waxuñu ngir xaalis maa ngi déglu dañuy wax loo xamante asalaamaaleykum tey nag euh, fii ñu taxaw maire moo fa waroon taxaw waaye dafa am empêchement de dernière minute mu yónni ñu man mi nga xam ne maay directeur de cabinet docteur Madiaye Fall ma ànd ak xaritam mbokkam Ndiaga Cissé ak Naay Ndiaye mais tey damay ñaan rek ngeen may moom boole waale Ablaye Pouy si délégation parce que la bokk boole si assurance parce si la bokk may tàmbale rek di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teewal CNG bi ñi nga xam ne ñooy encadré làmb fi ci Mbour su ma jëlee nuyoo bi nag teg ko ci loxo Maysa Ndiaye mu jottale ko grand Diaw Ablaye Bouy je pense que loolu jàll na may nuyu ki nga xam ni mooy assurance di nuyu ki nga xam ne nag tey moo waral bis bii muy le grand promoteur le promoteur de dimension nationale je veux dire Assane muy nuyu waa presse bi di nuyu communicateur traditionnel yëpp di nuyu tambour major yi Ali nuyu di nuyu képp koo xam ni ci axlu làmb nga bokk di nuyu sponsor yi parce que am nañu solo lool ci bis bi donc sponsor yi leen bàyyi xel parce que ñoom ñooy dundal làmb tey fi nga xam ne fi lañ defee signature de contrat bi mooy mbuur ku xam nag mbuur xam ni mbuur dafa am rôle boo xam da ko ci sport rawatina làmb mbuur ay champion yàgg nañ fi yeewoo di dugg Dakar di toj Dakar di ñibbi si wax fiñ ko defee tey nag mooy buntu mairie bi ku ne mairie mbuur nag xam li solos mairie ci dëkk waaye ku ne mairie mbuur na monsieur Cheikh Issa Sall Cheikh Issa nag li mu def ci làmb def ko ci sport d'une manière générale mën naa ni cinquante ans yi amal benn doom buur boo xam def na lu ñu toll donc dama bëggoon rek ngeen ànd ñaanal ko yàlla jox ko kattan ba li mu commencé di ko def pour axlu làmb mën koo continuer parce que yàggul dara daje nañoo waa làmb fële ci stade ba ba mu am lu mu defoon am lu mu leen dig jël na ay doomu buur yoo xam ne ay mbër lañ di leen fayal ñuy entraîné ca stade ba donc li ñu bëgg mooy te loolu am naa ci yaakaar la relève sera assurée parce que li ma gis tey di gis ko ci mbër yi nga xam ne dañoo dëkk Mbour jàpp nañ ni ay champion yu bari pépinière moom fi dina di juddoo xanaa kay di leen xamal rek ni monsieur le maire dina def tout pour que le deux mu ñëw taxaw avec une forte délégation ñëw jàppale son frère soo ami Assane Ndiaye bi nga xam ni moo ko defal honneur def ko parrain mais jàppale képp koo xam mooy axlu lam donc ma rek parce que tey moom du suuf signature de contrat la mbër yi ñoom ñooy stars yi ñoom la ñuy seetaan merci beaucoup doyen merci Assane merci Omar merci Ablaye Pouy jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaw benn yoon rek. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci bi. di gërëm suñu ñaari waajur ñoo ngi sant Serigne Touba wér maa ngi nuyu waa Mbour yëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxol maire Cheikh Issa sama xarit sama mag mu nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne yàgg nañu xamante mais dafa am benn message bu may jàllale waa mbuur rek li ma leen di xamal mooy am ngeen koo xam ne bépp dëkk bëgg na ko ku mel ni moom dama bëgg ngeen jàppale ko accompagner ko wallaahi la asim bu ngeen ko defee mbuur dina jëm kanam nit ku baax la nit ku bëgg sport la nit la koo xam ne li muy sonn ci sport man teg naa ci sama bët ay yooni yooni yoon kon nag bis bu mel nii bu amee mu waral ko kon waa dëkk bi war nañoo xam ne moom bëgg na dëkk bi te bëgg naa ngeen jàppale ko bu ngeen xamoon li muy jariñ kaak dëgg dëgg dëgg dëgg di ngeen ko téye fukki loxo ak juróom yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla jàppale di ko xamal ne ko ah ci kàttanu yàlla muy guddi muy bëccëg ñu ngi ci ginnaawam incha allah yi maa ngi gërëm presse bi yëpp ñuy jóge waa Dakar maa ngi gërëm waa Bawal TV di gërëm waa TFM yëpp ah di gërëm Cheikh Ndiaye bi ma àndal ak seex Diaw di nuyu ñëpp di leen siyaare di nuyu sama rak euh, Jaraaf Ndiaye ak Serigne saali foofu laa dalan tey maa ngi leen di nuyu bu baax di gërëm nag Omar Diaw wax dëgg yàlla jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax mbër yi yëpp xaw ci benn mbër woo naa ko ñu boole ñu ma ne ko Omar xoolal li la doy lu la doy si làmb ji doy na ma vraiment mu taxawal combat yoo xam ne am nañ ci yaakaar kon dañuy ñaan yàlla rek jour ba ñu dem si jàmm mu jeex si jàmm mais maa ngi gërëm nag assurance assurance mbër maa ngi koy gërëm bu baax ci champion la xol bu rafet la yor ku bëgg mbuur la puy maa ngi lay nuyu di la char di la bëggee bu baax a baax di nuy nag waa kër Baye Seex yëpp di jël nuyoo bi teg ci loxol Balla Thiam maa ngi leen di nuyu di leen siyaare ñoom rek wax dëgg yàlla ñoo gën a jaay combat bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen dégg di leen wax mbër yi euh, yi bu jógee dakaar ñëw fii pour suqali làmb da ngeen koy jàppale ndax yenn événement yi ñu mën ko def ci dëkk bi Dakar xat na te lépp luñ mën a def dakaar mën nañ ko def fii bëgg naa ngeen jël bis bi moom ko jàpp ci bu baax a baax mais Médoune président bi nekk euh, Kër baay Cheikh maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar di nuyu kóor di nuyu gaa yëpp yàlla na yàlla def jàmm ci dëkk bi Omar kontaan naa merci. ñoom it melul surtout Pafal Pafal barrière yi balaa 10 heures teg na barrière yëpp Pafal ñu ngi lay jërëjëfal bu baax a baax ñoom Abdoulaye ñëpp rek ñoom Aziz Ba ku lim juum yéen ñëpp waa Mañang production ñëpp ku lim juum Serigne Serigne Naar muy tambour major bi ñu koy sant di ko gërëm. ndax dernière minute lañ ko woo waaye lépp lu mu waroon a def rek def na ko Assane yaakaar naa sponsor yi di nga wax ak ñoom dara fàttali itam biir làmb yi. waaw jërëjëf mais dama bëgg euh, Balla Thiam ndaanaan lu mag li mu wax si làmb ji wax ci Cheikh Issa. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki mbuur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen kontaane. seen mbokk seen xarit Balla Thiam moo leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen kontaane bu baax eh ndaanaan bu mag bi defati na kii mooy Assane Ndiaye bool bool bu mag bi su ñëwee fii ci Mbour géej waa mbuur ñëpp war a génn dalal ko ndax Assane wax dëgg wax yàlla waa Mbour dañoo war a génn sargal Assane Ndiaye ndax daa romb région yu bëri romb département yu bari ñëw fii ci mbuur géej. ñëw war fee amal bés hee le deux hee le deux Assane Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen kontaane di nuyu public bi macha allah xoolal mbër yi nañu toogee xoolal ñu taxawee sol seeni mu nekk décor boo xam ne décor bu rafet la Assane Ndiaye jërëjëf Assane Ndiaye waa Mbour amee nañ la njukkal ndax tay journée bii nga xam ne tey indil nga ko waa Mbour am nañ si mbégte ak kontaante ñu ngi nuyu le grand champion Bouba Assurance ndax Bouba su taxawee nii tey tey mu taxaw nii sama ginnaaw dinaa ko nuyu dinaa ko jox wàccuwaayam Assane jërëjëf tey indil nga ñu bés bu rëy si diggante Boy Mbour ak Toubacouta Toubacouta moom la waa Mbour di xaar wante Boy Mbour mu ngi nii taxaw Boy Mbour tey ñëw nga sa adversaire Toubacouta anamu Boy Mbour. voilà. auzubillah mina seytaan rajim dañuy sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant sunu sëriñ sëriñ Babacar si yàlla yàlla yokki leeram di sant waa Mbour gépp maa ngi sant waa mbuur yéen waa mbuur maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant waa Kër Baye Cheikh di sant waa 100 pour cent Mbour waa di sant sunu waa Tarexa di sant sama waa Kër Maam di wax waa Mbour nag seen doom moo xewle. booy ngóor bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum te nag di njëkk a lancé benn message di wax Assane nañ ko sant gërëm ko ñun mbëru mbuur yi gars nañ leen sant Assane Ndiaye parce que li fi def nii yombut Dakar kenn ëpp ñu coow mais damay lancé benn message ñun mbëru mbuur yi gars yi nañ leen osé nañ leen osé nañ leen ose gars yi wan waa Dakar yi ñun ay mbër lañ comme ñoom nañ leen osé di mobiliser wu di liggéey di dem di bëre ji di defar làmbu mbuur ay ñëw fi xasante xeex xuloo yooyu andiwuñu fii signature la bisu làmb ja bu arbitre sifflé ñun ñëpp nañ rayante après mu jeex on ensemble waaw di wax na Assane Ndiaye di nga bëgg bu soobee yàlla bisu làmb ja di bëgg dinañ andi culture mbuur Sorouba dinañ ko àndi di wax mbuur ak waa campement benn lañ. waa booy mbuur sa digganteeg Toubacouta Toubacouta ñu ko doon xaar gisuñu ko booy mbuur looy wax Toubacouta. noo Touba dama koy ñaanal xaw ma lu ko téye waaye yàlla na ko jàmm téye yàlla na ko jàmm téye ba bis ba mu ñëw àggali contrat ku fi nekkul mënoo wax si moom waaw maa ngi sant ñëpp nag di wax ni le deux. ku bëgg a ànd ak Boy Nguur na nga teel a ñëw koñ Jalma teel a ànd ak suuru baay dem estaat ma dugg tuus bége jàpp bëre daan ñibbisi wasalaam mais di woo autorité yi nekk fii monsieur le maire Cheikh Issa ñun gis nañ ñu ñu taxawoo ñu ngi lay sàkku ñaan bu baax nga jàppale jeunesse bi di wax sunu grand ci bugga yi nañu ñëw jàppale si combat bi parce que chaque jour mu ngi ñuy jàppale waaw di woo waa garage suuf bu mbuur man waa garage laa garage suuf bu mbuur waa campement duñ fi ñëw gën ma fee andi supporter yéen waa mbuur yi képp ku bëgg a gis tuus bu neex ak dugg si bu neex na nga ñëw esat man booy mbuur man maay defar làmb ji neexal ko bu soobee yàlla di wax waa di woo waa Kondiama waa Sotodo waa Ginnaaw Raay waa golfu këri kaw ak këri suuf waa Tefes fàttewuma leen ñoom ñëpp suñu waa Ikiri maa ngi leen woo ñoom ñëpp Ikiri Bombardier di woo Ikiri Jordan di woo Ikiri Bouba Assurance di woo Ikiri Pakala di woo Ikiri Diamaguène waa ONCAT bàyyiwuma kenn képp kuy doomu Mbour maa ngi lay ñaan nga ñëw sama ginaaw man tëjuma fenn fépp laa yaatal dama gëm sama bopp di liggéey aw ma xajaat seen si ñëpp waa sali tout di wax nag di woo sama papa Bombardier na ñëw jàpp si combat bi sama père Moussa Loos waa sunu tarixa maa ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal Père Omar Diaw ginnaaw yàlla bu ma fi ñëwee ba di bëre yàlla ak moom mbuur nag li may wax képp koo xam ne nag am nga loo ma téyel te yëguma ko rek maa ngi lay baalo àq di ñaan ndam waaw di woo ñëpp di woo ñëpp di woo ñëpp di woo waa ginnaaw raay bu baax a baax a baax nañ ma ñëw jàppale waa ginnaaw raay combat bi seen combat la ñëw naa ngeen taxawuma téye ma def ma comme ni ngeen def seen doom maa ngi ñaanal ñëpp. waaw Ousmane mi nag gars ku bëgg a yor forme bu dëgër di liggéey di yor énergie laalool original booy mbuur original la dama lay bàyyi ak yàlla ba bis ba incha allah jërëjëf. jërëjëf Boy loolu am na solo en tout cas daal am nañ mbégte ak tey li xew fii kaddu gaa ngi noonu soo amee looy wax waa Mbour tey looy wax waa Mbour Assane. jërëjëf may sant rek sponsor yi maa ngi gërëm waaw may gërëm sponsor yi bu baax a baax lii suñ ko mënee sponsor boisson original moo tax dama bëgg képp kuy doomu Mbuur ngeen jàpp ci boisson originale bu baax a baax a di wax monsieur le maire bum naanati dara nay naan boisson originale wax waa Mbuur yëpp ñuy accompagner boisson originale su ngeen si jàppee ba boisson originale am rupture Mbuur euh, Zador TDR ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax Omar kon dinañ gën a def ay combat yu mag fii nii mais maa ngi gërëm bu baax sama papa As Ndaw di gërëm bu baax Adja di gërëm Wuli di gërëm Aliou di gërëm waa euh, boisson originale yëpp kontaan naa trop Omar am naa mbégte Balla Thiam kontaan naa Bouba maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant yàlla nañu yàlla defal jàmm di gërëm naar di gërëm badu di gërëm Cheikh Ndiaye gërëm Cheikh euh, Cheikh Diaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Omar Diaw yaay teg waaw jërëjëf Assane damay sant gërëm d'abord waa Kër Baye Cheikh ana la président Medoune waroon naa ñëw taxaw fii ci suñu wet ak Balla Thiam mii Medoune a ngi nii kii mooy président Kër Baye Cheikh man naa wax ne promotion bi combat bi am groupe Kër Baye Cheikh ñoo ko waral kii mooy président waaye mën nañoo wax ne Balla mii mooy seen animateur Assane cant ak ngërëm goo xamante ni yaa ngi koy placé à notre rek ñu ñi ngi lay sant di la gërëm lu weesu li ñuy sant di ñu gërëm parce que wax naa ko sànq ci émission bi Assane xamul ma woon man maa ko xamoon à travers la télévision ñi boole ñu mu may yónnee ay millions te mosuma teg bët drapeau chef de l'État bi ma ko nuyoo ne ko Assane na def. daf ma joxoon waxoon ne ma mbër na nga def ma ne ko maay Omar Diaw ci la may doo ko xam te fekk na booba bu may yónnee ay millions loolu ku dayuwul amoo kóolute ci nit juboo doo ko def ci nit waaye Assane ñi ngi ñaan li ñu bëgg li ñu ñaan kay nga rëcc ko li nga yéex a ñëwee mbuur waaye ñi ngi ñaan yàlla nañ fi ñëw jundi yoon te gëm nañ ne li wolof di wax na njeexaat foo foree doon doon la fa sab loxo dina ko doon parce que fi nga dal moo baax parce que le premier magistrat de la ville de Mbour moom nga tuddee làmb ji borom Mbour nga tuddee làmb ji kon dama wax ne muy góor di jigéen di mag di ndaw ak foo mën a féetee nag yaa xam parti boo mën a féetee fasante ngaa Cheikh Issa kóol rek boo xamante ni bisam buñ ko wootee kenn warul faa jiitu mu yónnee docteur Mafal Mbanjay mu ànd ak Njaga Siise ànd ak naay mi nga xamante ni fépp fu mu dégg ne fii am na ñagas ñagas ci diggante Cheikh Issa naay jaar na fa ñaw ko